ndeysaan wala deuxième tour leer diggante Papa Ngane Sossokh ak bébé Ousbou Sindia Lamou bay Colombe production ci ci terrain Gaal Gui mise 3 millions de francs CFA Papa Ngane Sossokh Jini Sara la série de Ngane Badou Salim Faye bi Faye le Zeni Abou Diallo Soso Moussa Diol Soso Sossokh Abou Sika Tourou. ak Salim Saliou ndeysaan mbaru Ndiogu Diouf bi bébé Ous Papa Ngane Papa Ngane lu mi def ni la ilaha illallah Pongane Bébé Ouss Sindia Bébé Ouss bi neexul affaire de Lamine nee naa la Bébé Ouss neexul affaire waaye Bébé Ouss bi neexul affaire waaw Sosokh jël na avertissement ndeysaan mbaru Abou Diallo Sosokh bi jël na avertissement waaye ndeysaan kenn du Bébé Ouss bu Sindia waaw Pongane na avertissement